jërë jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fa yéene ñëw nuñ koy defee ayubés bu nekk dégtal leen li nga xam ne moo di seen chronique. tey dañuy tàmbali seen chronique di euh, baalu mbaam xuux yi ak ñi ciy liggéey. ndax kàddu yi nga xam ne moom la yëkkati woon jëmale ko ci mbaam xuux yi ma am ci ñoo xam ne ay ñuy liggéey ci wàllu mbaam xuux la nekk ay soppe euh, woo ma na ma dama leen tooñ kon wareef la ci man ma jéggalu mbaam xuux yi du tee la ma waxoon tooguma fa dama ci riigu riigu bu baax a baax duma mësa tontu mbaam xuux du ma mës a defanteeg mbaam xuux ndax li ñu gën ñor mooy réew mi rekk kese senegal moo ñu ñor loolu la ñuy woote senegal nag dañ ko waxtaanee bu baax a baax a baax a baax a baax ndaxte réew mi jamono yi coow li bari na lool lool lool wax naa leen feebaru màgget la foo bés mi ngi métti ba ma koy wax mbiru histoire générale di Sénégal bi sax ñooguloon gis ngeen coow li nga xamne mom la jur ci anam bu ne kon ngalla way nañu ñaanal réew mi mu nekk ci jàmm ndax nag jàmm ci la lépp xaj jàmm ci la lépp xaj waxante bi bari na lool lool lool lool almaxtoom doon wéeruwaay am kàddu yum daan faral di yëkkati ñu àndandoo déglu kàddu yooyu dellu suwer nag wéyal suñu waxtaan ndax li ñu war a waxtaanee tey ci chronique bi bëri na waaye ñu déglu almaxtum Dakar waaye penc ma mu exclure ci ñaari nit ki gémmiñam rëy te mënul soutenir un débat parce que amul élément bu mu ko soutenir ak ki am élément bu mu soutenir débat ma yarul boppam ci wax ak mbooloo kooku nañ ko dàq moom itam. kele mu tudde ko aladul khisam ki mu tudde ko wil khisam ghayru mubin Dakar Matin Li serigne cheikh ahmed tidiane ci al maktoum wax deug gu wer peng la ken mënu ko dindi ndax ñi wax bari na ñu te di wax bari na kon war nañu mën and ak dal rax ci doli seen cheikh tidiane ci al maktum dankaaf won nañu ci yenn nit ñi wax ñu àndandoo ba tey jii déglu ko parce que ay jàngat yu xóot la yoo xam ne dañ cee mën a sukkandiku mu nekkee dañuy waxtaanee réew mi. Dakar Matin. am na loo xam ne bu ko nit waxee nit ki normal la tudd waaw maa ngi ko waxtaan ak benn médecin mu mel na tudd na ma sax baat ñu di ko waxee schizophrénie. mani ko kë luñ koy bindé mu ni ma CH feebar la buy def ci yow ñaari jëm moy tax yenn yi li ngay wax ci suba du bok ak li ngay wax ci midi waaw c'est pathologique kenn mënu ci dara amna na benn sunu mbokk bu nekk ndar daf ko dal waaye da ngay son da daf lay tëj fii wax la loo xam ni da ngay defe ni doon daanu lool la fekk dara du ci dëgg moom doo xam noo koy def benn bés fekk na Pape Cissé mu toog ci kër ga ma ni ko allo Pape bi sa sa yaay mu def lii mu def la Pape ni ko ah, fan yëpp sama ngi ci biir dafa seet si sama mu ni ko ah, ah. mu ah, ma ko ba tax na rek bàyyi ci xel baax na bàyyi ci xel baax na. gis ngeen lii almaxtum wax. dal na autorité yu baree baree baree bari kilifa yu baree baree baree bari dal na leen. feebar bii da ngay taxaw di wax ba fëgg sa dënn ñëpp jàpp na li ngay wax dëgg gu wér péng la ci yow dara du ci daj ndekete yow mi koy wax sax gëmoo ko moo tax des fois damay laajte. est-ce que kilifa yi ñu jiite li ñuy wax dinañ dégluwaat seen bopp dégluwaat seen bopp xam ne lii ñoom ñoo ko wax askan wi askan wi di leen ci xaar ñu def fàttaliku président Macky Sall def na fi ay conseil des ministres décentralisé yu bari lool coow di bari fuñ dem mu mel ni tulleeg màlle mu mel ni réew mi day taw ay milliards ba sax amna suñu di milliards Sénégal est ce que mëno leen ko rek ku milliard région dem milliards. Dakar Matin. dernier conseil des ministres ñing ko défé fi ci région de Dakar mu umbon Pikine way Rufisque mu amone ay kàddu yo président Macky Sall rotaloon De fa di nat di xayma conseil des ministres. Dakar Matin. Je suis venu présider ce jour 20 juillet 2016 à Pékin le 14e Conseil des ministres délocalisés. Cet exercice de planification commune entre le gouvernement et les populations à la base nous vaut aujourd'hui une programmation territoriale d'investissement d'environ 2800 72 milliards. 2872 milliards, c'était avant le Conseil de Dakar. Je peux vous dire que sur les 2872 milliards, déjà 1700 milliards ont été exécutés au moment où je vous parle. Soit un taux de réalisation hors Dakar de 61%, le taux d'exécution des engagements pris dans les 13 conseil des ministres délocalisés. Il faut ajouter aujourd'hui 1800 milliards de francs pour le conseil de Dakar. S'agissant particulièrement du conseil de Dakar, je viens de valider en conseil un important programme d'investissement qui est de 1800 milliards sur les trois années à venir, 2016-2018. 1800 milliards, dont seulement 126 milliards sont à rechercher comme gap. Autrement, sur les 1800 milliards, nous avons tout ce qu'il faut, sauf 126 milliards que nous pourrons mobiliser avec euh, nos partenaires. Je voudrais simplement faire noter que ce Conseil des ministres d'aujourd'hui a permis de prendre les décisions importantes suivantes. Je décide de retourner le stade Hassan Diouf de Dakar à la jeunesse pour construire un nouveau stade pour un montant de 20 milliards de francs CFA. Donc cela va mettre un terme à cette, euh, ce conflit entre la jeunesse et donc nous verrons avec euh, tous les acteurs concernés la mise en œuvre de cette décision importante. Sur d'importance, je reviendrai là-dessus lors de ma tournée à Barny et à Rufisque, c'est la protection côtière. Nous voyons aujourd'hui les conséquences négatives des changements climatiques sur les populations riveraines et côtières qui vivent dans, le long de la côte. Enfin, j'ai décidé que Rufisque verra son canal historique enfin refermé, reconstruit, j'allais dire, sous un format approprié et les études seront engagées sans délai pour que Rufisque, en tout cas, puisse vivre dans un environnement beaucoup plus sain, qui puisse également éviter la prolifération de moustiques et de toutes tout désagrément de cette nature. Dakar matin. Mais l'acte tu dongo nak. Là, tu dongo la wax. Néna 2872 milliards def Le taux de réalisation bi yegg na ci 68%. est modeste mu donne 100%. Ci fukki région ak ñett yu nekk Sénégal. Lolo waxon dé. Bobu bolé gu ci Dakar. tey jii est-ce que foog nañ ne loolu bu nekkoon dëgg gu wér péng la jafe-jafe yi askan wi di dund dinañ ko dund ba yuuxu fu ne wàllu est-ce que loolu bu nekkoon dëgg gu wér péng la région yi jafe-jafe yi nuy dund dinañ ko dund bay woote wàllu te ba mu koy wax mu ngi doon wax ci diggante 2016 2018 fii ci Ndakaaru mu ne 1800 milliards dina ko fi def en terme d'infrastructure ci diggante 2016 ak 2018 ñuy laajte dong fan la 1800 milliards de jaar ak fan la dugg parce que dem na ci sax bané nous am nañ lu ñu soxla yépp li ci des 127 milliards kon man def sax soustraction bi 1800 ñu na 127 milliards lolu fan la dugg fi ci Dakar kan moko gis ci digënté tëngéej pikin gédjaway ak dakar dakar matin mom mo wax ci ne estat assane diouf bi da koy delloo ndaw ñi ñu def fa projet 20 milliards tay ji dégg ngeen ne estat assane diouf bëgg nañ ko delloo chinois yi lam waxon génn na ci protection côtière moko wax dé manam gédj gi nga xamné mi ngi lor ay doomu adama di nangu seeni kër est-ce que lolu def nañ ko fi ci 2016 ak 2018 seeni wax rek lay top. du sori Rufisque ne woon na canal bi ci diggante 2016 ak 2018 lolu bam, koy wax parce que 2017 ni ñu doon jëm ci élection législative lolu tax may wax né ñuy jappé dof ñi ngi wut garab yu leen fajee té nak seeni garab jafé lol du sunguf du comprimé du reen war nañoo wër ba toqi tey jii tëngéej teeram bi nga xam ne def na ci mille six cent milliards et poussière mu ngay continuer di gën a wéy teeram boobu moo yóbbu Rufisque à terre may laajte dong ñoo doon wax ne étude impact environnement bi yëpp def nañ ko loolu yëpp def nañ ko tey jii tëngéej waxuma teer bi nga xam ne lor na tëngéej waaye inondation ya nekk ca tëngéej tax na Tëngéej méngoog Venise dëkk ba nekk ci Italie nga xam ne fépp ndox la askan fay dund loru sànku di toltongaay sonn lool sonn lool taw yu ndaw ndawaan yi yi nga xam ne tuur na ci ndakaaru ci weeru septembre gi rekk weer lépp weer lépp Dakar di buuj foo jaar ndoxan fa luñ mustoon a gis sax y dégg ay inondation mais ci banlieue bi lañ ko a bu amul benn yoon booy jaar Dakar te du am ndox mu bari amul yoon booy jaar ci Dakar amul dégg président Macky Sall mu ne dafa bëgg def audit infrastructure d'assainissement du mujj fenn léeboog lay doon la a xam mbir mi bu nekkoon na lañ waroon a def def nañ ko ci dëgg-dëgg ña gagné marché yi def nañ lañ waroon def te dara lënd mu ci dakar matin mais taataawu ndox yi duñ ko gisee nii ci ndakaaru dama jël la sax jafe-jafe yu askan wi di dund ci banlieue bi terre bi num leen loree way way ngal la may wax lu tax du mujj fenn ku nekkoon ministre de l'hydraulique mansour fay nekkoon daanaka patron onas

lu tax ndox mi di taafu ne fan la jaar ñu weex waxuñu fi woon plan décennal boo xam ne ñaata milliards lañ wax ne moom lañ ci def dakaar tey jii mel ni mel Dakar dem ba nga xam ne foudre moo fi rey ay nit ñu ne ana paratonnerre yi daanañ dégg foudre day rey li ci ëpp ci àll ba lañ ko doon dégg dakaar paratonnerre sax amu fi ñu ne capital émergente Dakar matin bi fan lay jaar ak ndox mi. 1500 milliards ak 1600 muy dem rek kan xamul sax chiffre exact bi léegi bu yegg ci ay 2000 poussière milliards ya nga xam def nañ ko ci terre bi lan la jur xana kay kuy bot jot la wo do rogonté ay gamb kuy bot jot la wo do rogonté ay gamb la wax limay wax ni dafa nek lo xam dañ ci duut baram motax day metti ken munu ko dindi la ngay defee ci terre lu toll ci milliards Dakar boy Guinée boo bu même pas une heure de temps doo fa ndox Côte d'Ivoire naka noonu te ñooñu ëpp weer yi ñu taw Dakar bu xiinee ñëpp tiit ñu émergence terre dépense folklorique dépense de prestige amul benn cent quatre-vingt-quatre milliards boo ko defoon réhabilité Dakar Bamako ñu ne duñ ko wax ñoo koy wax ba gaynde génn suñu gémmiñ ñu wax si suñu ressources naturelles yi àndandoo déglu sëriñ Habib Sy bu sëriñ mbay Sy Mansour Dakar Matin waaye nit ñi war nañu penché wu ci suñu suuf si ñu am ci ba phosphate bañ fay extraire la fay génn ci alal lan mooy njariñam ci réew mi industrie chimique du Sénégal fii ci Tiwaawan te ñu moom ko lu tax nekkatul ci loxo sénégalais mu nekk ko ci ay la ko Inde la fay génn te ñu moom ko ñun muy suñu xaalisu bopp ba Tiwaawan hôpital ba di yalwaani ah ñu wëlbatiku zirkon di génn fii ci jogo ci suuf si suñu suufu bopp la fay génn ci alal te ñun mënuñoo faju mënuñoo lekk te lu ñu bëgg faaw ñu ni sëriñ si sëriñ bi fëgg ñetti taalibe ñeent kii indi ambulance kii indi garab kii indi leneen te yow suuf si nga yalwaane leen nit ki fa la phosphate ba nekk fa la industrie chimique du Sénégal nekk fa la ñuy gasee zircon bi kër di togg añ ngay xaaraan kay si yéeme na yéeme na waaw donc yooyu yéen ñi fi nekk di autorité yi ah ngeen jëm ñu ubbi ci yooyu Dakar Matin. Kaddu yi señ bi rotal mu jëm dong rek ci tawon ak la fa nek danaka dekk bo dem ci rew mi luñu mel ngay gis bo demé dugu mo fam fatalikou len amona xalé yu done manifester dugu ba am kenn kuñ ci bom ba kanam amna fi lutax ak luy ndey sunu autorité yi buñuy di def yenn contrat yi duñ ci sor askan wi askan wi fan la len fété bo tuddé pétrole ñé né waw pétrole bi bay leen di ci wax ndax benn pépp pétrole génnagul sax ngén commencé di ci wax mais dinañ ci wax benn pépp pétrole génnagul lu tax société yépp ñew rigu sénégal di signer ay contrat lutax expliquer ko lutax yeen ngén dem di négocier ji lutax ngén am seeni tubab yo leen di ak ay mbir te benn pépp pétrole génnu yeewu sénégalais yi ngir yalla génnoon tubi contrat bu ne signé ngeen ko te li ci graw moy contrat bo leen ci signé da ngeen ni neubatu nit moy juk weer leen ngeen tontu deugal bu ci muju yagatul Ousmane Sonko da ko wax rek na Cosmos jaay na Abu Dhabi Seydou Gueye génn wax tojaange tamit toj toj ne yoon état nekku ci muy moomelu Sénégal Dakar matin waaye tontu nañ ko tontu bu saf sap bo xam ku jàngoon touti lire touti code pétrolier bi di nga xam la ca nekk ngeen ci signé ay contrat yoo xam ne trente cinq ans la ay nit ñu jël sunu moomeel ngeen ne yéen boo leen jox dem ngeen sax bay wax ne oui contrat yi soo libalee en anglais yéen foo leen mën a jàngee anglais xanaa ñun war nañoo mën a jàng anglais buñ ko mënut a jàng tamit transcription yi naa xuuj ci Google foo dugal ñu transcrire la lépp wala nga dem gis ku jàng anglais mu waxal la ko loolu mooy wane ne malhonnêteté intellectuelle li may wax ne. escroquerie politique moy lolu malhonnêteté intellectuelle ak escroquerie politique moy lolu den wax de wax ba mu neex lañuy def té nak askan wi rek lañuy ñuy ci lepp li ñuy wax ak Sénégal ci walu yoon bii mooy troisième fois ñuy bañal Adama gay liberté provisoire may xalaat na ci réew mi nekk fi trafiquant de drogue mo gëna yomb nek ko xamne ci délit d'opinion lañ lañ la tëjee trafiquant de drogue y'en japp ci port couple allemand avec italien bi jox nañ leen liberté provisoire de ñom ils ne sont pas dangereux trafiquant de drogue lañ grawul mais Adama Gaye moom oui faut ñu yar ko il faut ñu yar ko kon ma jafé na ci réew mi nek fi trafiquant de drogue wala nek politicien bo xamne da ngay taje alalu réew mi mo fi gën nekk fi leneen. Dakar Matin. jeexal ñooñu di def loolu yépp di leen dégtal kàddu imaam yii waaye laata ma leen koy dégtal naa leen wax ne imaam yi ñu ngi wax de waaye dafa mel ni ñoom dafa am lu ñu umpale dafa mel ni ñi ñuy wax ak gëmuñu dee dekki bokkuñu même yàlla ji déedéet gëmuñu dee dekki bokkuñu même yàlla ji gëmuñu ko de. foog nañ ne lépp fii la yem loolu la ju gëm ñoom. kon dañ leen diktal kaddu yooyu moom la ñuy jeexale tey leen sant di leen gërëm di leen dig daje àllarba ci beneen chronique ci xew-xew yi nga xam ne mi ngi am fii ci réew mi wasalaam jërë ngeen jëf procureur dañ laa sant ay mbir nga di ko def ci topp ay nit da ko lay de dossier boo mës ubbi di nga ko ubbi ci kanam yàlla dossier boo mës tëj di nga ko tëj ci kanam yàlla lu ci waay di def xoolal ba ngay juddu xamuloo ko xamula da daje nga am diplôme mu am diplôme mu nekk président nga nekk procureur mu bëgg a dox sa kaw ndax dooleem nangul yowmal qiyaam yàlla dana la taaj dana ko taaj te mbir yi dana leer de billahi ladi laa ilaha gayru tëj leen kaso def leen lu leen neex sàcc leen lekk leen yéen a tay bis dana ñëw sénégalais yépp danañ taxaw ngeen fay leen coow li jaru ko ku des soo defee xam nga te it nag am na loo xam ne yàlla du bàyyi ba yowmal xiyaam de fii la koy tàmbalee at fii la koy tàmbalee at mbokk yi ana Hissène Habré nekkul Sénégal lu mu def càdd du fii lañ ko attee tëj ko fi ana Omar al Bachir ñaata milliard la détourné woon tey fu mu mujj siletment la sol ak benn caaya ñu tëj ko ci gri Omar al Bachir président bu Soudan fu mu mujj ñaata président africain ñaata président président Burkina Faso anamu dafa xëy suba daw Blaise Compaoré anamu foogoon la ne adduna bi moo ko moom teg rakkam lu ko neex def tey fan la Blaise mujj daw fu mu mujj xool leen Afrique mbokk yi ñaata président wallahi ladi laa ilaha gayru Tunisie ngi nii seen président milliards yi mu sàccoon tey Europe ko moom mënu koo jot fu mu mujj nga lor say nit lor say dëkkandoo lor say àndandoo tàllal sa loxo wat ne danaa yore réew mi ci yoon ñëw di def lu la neex yoral sa police yoral sa douane yoral sa lépp te nekk sa disposition waaye yàggul yàggul deux mandats nga am wala trois mandats xoolal sa digganteeg sa borom bu baax.